Eh, dama gis video bi mo yaram ndaw pro cité kër gor gi voisin yi la demon la baalu ak ndaysan wallahi ki mo gëna ta bax manaka ki mo gëna ta bax waye to lama yagg wax rek difficulté bo gis rek banex mo ngi ci waaw loolu moo la paree feeñ instant bi diggante Ousmane Sonko ak nguur gi daa mel ni rek janta buy jóg fajar mbégte googu foofu lañ toll mbégte Ousmane sonk instant yi fajar mu ngi xar te bientôt ngeen gis tuuti la ngeen gis jant bi jóg nguur Macky Sall nag daa mel ni fu mu nekk jant bala so waaw jant bala so rek dara mënu kaa retourné loo ah, waaw foofu la ñuy toll moo tax pour incha allahu rabbi incha allahu rabbi ijatu wal li sa kanam yëpp mbégte la waaw mbégte la incha allah incha allah waaw.